ayu bés si ñu jagleel wàllum artisanat moo ndax képp expo Dubai 2020 fii si Dubai pavillon Sénégal artisan yi jóge si réewum Sénégal ñoo fi fësal seen liggéey yu xarañ yi nga xam ne moom la ñuy amal fii nag di ndaje lu am solo lool ngir gaaral liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy daal di def ndax ñaar fukki million ak lu topp si ay doomi aadama jóge si àdduna bi yépp daju nañu fii si Dubai. jëwriñ ji ñu dénk wàllum artisanat Pape du Ndiaye moom it ñëw fekkee bërëb yu am solo yi ak daje yi saafonteeg ñi nga xam ne ñoo di artisan yu réewum Sénégal waaye tamit am mbégte ci ubbeeku gi nga xam ne fii ci Dubaï artisan yu ubbeeku nañu ko ngir seen liggéey gën a fës. Sénégal nag mënuñ koo jaay te tudduñu artisanat ndax artisanat mooy sunu baaxi maam waaye tey tamit dañ ci yemuñ ca ndax tey li nga xam ne mooy Sénégal ëllëg fii itam dañ ko fay wone te muy. BRT bi muy train express régional muy tamit euh, autoroute muy pétrole bi nga xam ne war nañ ko fay def ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xam ne ay mëninu Sénégal la te bañ ko fi dooree tax na ba ñi nga xamante ne tey ñooy nekk ci àddina bi yëpp daal di bàbbeeku ñëw fii xool ko daal di koy apprécier loolu vraiment mooy sunu mbégte waaye tamit di ñu gën a ñaax pour que ñu war a gën a góor góorlu gën a dem fu gën a sori pour que Sénégal bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi koy xool bàyyi ko bët mu xam ne loo xamante ne ëllëg day nekk ngëneelu askan wi muy ngëneelu Sénégal ndax lenn moom leer na sénégalais yi mën nañoo liggéey ñu leen di jàppale ba seen liggéey boobu mën a egg feneen fi nga xam ne moom lañ koy soxla pour que exportation boobu nga xamante ne moom la ñu bëgg ñu mën ko def ci dans le monde entier. lii di firndeel ay jéego yu am solo yoo xam ni artisan yi si réewum Sénégal def nañu ko waaye tamit gouvernement bu Sénégal def na ko si jàppale artisan yi ba seen liggéey daal di mën a fës ba askan wi yëpp man koo teg bët ba mu génn biti réew fii si Dubaï firndeel la si ñu bëri rafetlu nañu liggéeyup doomi Sénégal yi ngir xarañteef gi nga xam ne moom la làmbool durant cette semaine, il faut savoir qu'au-delà même de la semaine, nous comme je l'ai les organisateurs qui ont de déplacer 86 artisans qui, est, qui de les avoir pris en charge. Et pendant ces six mois, à intervalles réguliers, certains artisans sont venus montrer Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de visiteurs sont dans le stand du Sénégal pour voir le savoir-faire de nos artisans. Et c'est donc pour nous euh, une aubaine et une opportunité. jëwriñ ji Pape Amadou Ndiaye daan nay dem si beneen village yu mu fekkee te yeneen doomi Sénégal fii ñu gën fee fësal wàllum ay sac ay dàll ak lépp loo xam ne te fu doomi réewum Sénégal yi ñu ngi koy def si wàllum artisanat dara manqué wu fi da ngay jàpp ne sax yaa ngi biir Afrique yaa ngi biir Sénégal doomi Sénégal yu xarañ yi ñoo ko fi fësal jëwriñ ji ànd seen mbégte lool ñoom it doomi Sénégal yi am si mbégte. waaw waaw macha allah moom. boo xam ne tuwaar fa kàlla macha allah. waaw dafa tëjalul kenn dara. ndax ñun ñu woyof ñun. bu suñu jëmm yi taxee muy jóg di ñëw fii di ñu seet si kawoo. président Macky Sall bu ñu fi ñëwee xat moo tax déggul lii ci na ko décoré ba mu ne da koy déplacé ñëpp a toogoon ñëpp a yuuxu du dem du dem du dem kon yaa gën a jóg yal na sa jàmm. amiin mbégte mi fës na lool ginnaaw bi mu visité mboolem stand yi ak exposant yi liñ fi gaaral joriñ ji boppam daal nay génn nag fekki doomi Sénégal yi si mbedd mi ni nga xam ne noonu la ñuy nekkee ginnaaw bu liggéey ngir noppalu dallu ànd ak ñoom naanandoog ñoom café nekkandoog ñoom bërëb yi waxtaan yoo xam ne ànd na ambiance Sénégal dëgg nga jàpp ne sax yaa ngi biir Ndakaaru wala biir Sénégal ndax ni nga xam ne noonu la jëwriñ ji di saafonteeg doomi Sénégal yi fi nekk mbégte mu yaatu li fa seen xarkanam ñoom ñépp you very good tali tali wala you very good very good xool nañu xam ci Sénégal three mètres i teg three mètres ah, ah, ah. savez, dans la plupart des pays, le secteur de l'artisanat est un pourvoyeur important d'emplois dans les secteurs d'activité de production. Après l'agriculture au sens large, il constitue le premier employeur. Au Sénégal, nous avons, suivant les chiffres de l'ANSD, qui est l'Agence nationale de la statistique, 1 450 000 artisans. Et ces artisans sont dans trois secteurs. Il y a l'artisanat de production, l'artisanat de service et l'artisanat d'art. Et il est donc euh, éminemment transversal car l'artisanat accompagne l'ensemble des autres activités, que ce soit l'agriculture en pré-récolte, mais également en campagne, mais aussi en post-récolte dans la transformation. diggante 2012 ak 2022 ay jéego yaatu yowum Sénégal dox ko ci wàllum artisanat lii firndeel ko expo Dubai 2020 ci njeexital yi ñu gaaral fii liggéey bu am solo boo xam ni doomi réewum Sénégal def nañu ko ci wàllum artisanat jëwriñ ji ànd seeg mbégte lool ci tànk yi nga xam ne def na ko nemmeeku fii moom Pape Amadou Ndiaye fekk siit docteur Malick Diop mi nga xam ne moo jiite Ndiaye meeg njënd mi si biti réew doomi réewum Sénégal waaye nañ ko fii si Dubaï Dubaï artisanat bu réewum Sénégal si giwaat fii si biir exposition